xeexu mbax mi tam euh, Sénégal euh, am na si benn raaya ñu ràññee ko si si réewu àdduna bi yëpp ñu ne ñaarul réew bi gën a xarañ si ni ñu xeexe mbir mi ñu ne Sénégal mooy ñaaru réew boobu derrière Nouvelle-Zélande loolu nag ñu koy rafetlu bu ñu ko mënee am nag c'est parce que dafa am ay critères yu bëri mais critère bi su njëkk mooy lu ñuy wax portage au some mooy leadership au some mooy ki gën a nek ci kaw réew mi ñu jox ko réew mi mu war ko diriger moom mu porter xeex bi loolu déjà tax na Sénégal nekk si kanam parce que dëkk yu bëri leadership au sommet boobu manqué na leen mais ñun Sénégal au contraire tous les jours au jour le jour le chef de l'État son excellence le président Macky Sall day suivre question bi teg en place la stratégie ñun ñu appliqué ko. beneen bi mooy engagement wu personnel de santé et d'action sociale loolu itam wax dëgg yàlla six mois nelawuñu beneen bi moy multisectorialité lo xamantene dañ koy pencoo ñepp bokk ci ñepp bokk ci xeex bi y compris toutes les populations sénégalaises loolu tam nek na vraiment lu am solo mané lu melni rek bu amé bu fekkente ne da nga amul xel rek day nekk occasion bàyyeeku au contraire message la bu am solo lu ñu àdduna bi wax mooy xam nga mooy lan mooy waaw góor waaw góor nag boo ko waxee jàmbaar day tax mu gën a donc jëm si kanam mais boo ko xamul dara nak day tax mu wacc loxam donc waaw gor biñu ñu ñun Sénégal danañu tax ëlëk ñu gëna def lo xamantene day gëna am solo ci xex bi parce que xex bi djexagul lolu il était important donc que moox ko en tout cas ma ngi féliciter son excellence le président Macky Sall parce que euh, stratégie bi mu tek en place pour le Sénégal euh, aduna bi ràññee nañ ko té lolu effectivement donc message lo am solo pour ñum message d'encouragement la message lo xamantene daf ñu permettre ñu gëna dem kanam